coronavirus mbaa du xéewal la ci ñi jiite réew meek yenn lom d'affaires yi ñuy lëkkalool scandale mi ngi xeeñ ci xaalis bu bëri bi nga xam ne nguur gi mi ngi koy génne jamono ji ngir jënd dund gu ne da koy jàppale askan wi nañu xool njëkk ci li ñu commandé ci ceeb am na ñaari société benn bi mi ngi tudd Aventi beneen bi tudd Afri en Co ñoom ñaar kii gagné na neuf milliards six cent vingt cinq millions keneen ki gagné huit milliards deux cent cinquante millions boo boolee lépp daanaka dix huit milliards ci xaalisu CFA ñaari sociétés yooyu gagné nañ ko ci li nguur gi sàkku ci ñoom mu jaay leen ceeb. li ci tey xel nag mooy ñaari société yooyu daanaka ñoo bokk fu ñu ne ci Ndakaaru ci avenue Lamine Gueye muy cent cinquante ak cent cinquante deux avenue Lamine Gueye te ñaari sociétés yooyu laaj bi mooy ba xam kenn nit kese moomu leen mënees na koo yaakaar ndax adresse yooyu ñu nekk fa restaurant bi ñuy wax Planète Kebab Ville nekk te ki moom Planète Kebab googa mi ngi tudd Ryan Hachem moo moom société bii di Aventi bi ñu wax sànq mi nga xam ni moom gañe na luy tolloog neuf milliards six cent vingt cinq millions francs CFA. bala ñoo xam nag ba xam beneen bi sax moo ko moom di beneen société bi bi ñuy wax Afri&Co moom sax dañ koo gisul ci fa ñuy bind société yi ca APIX mooy kuy créer entreprise di sos sa entreprise di ko taxawal fa nga war a bindoo ji gisuñ fa turu entreprise le moo tax Mansour Faye mi nguur gi dénk dossier bii war naa gaaw a gaaw ñëw taxaw ci askan wi leeral lile. amul dara luy justifier muy corona mbaa choléra amul dara lu war a tax nguur gi war a xalaata jël alali réew mi di ci def naka sudul noonu Mansour Faye mi nga xam ne goro président Macky Sall la boo seetee. mooy waa ji gën a naat ci Sénégal ci buñ ko dee wax ci wàllu joxem budget ci réew mi ndax ministère am ba na mu toll rek joxoon na ko dayee woowu ñu ni déetawaay Macky Sall wëlbati ko jox ko embolom bu diis ci wàllu xeexum jàngoroy corona gi ci réew mi xool leen rek xaalis bi ñu jël ne def nañ ko ci transport ngir camions yi mën a yóbbu dund gi ci biir Sénégal luy jege ñaari milliards ci xaalis CFA te moo ne armée bi am na ay camions bu deful liggéey bi yëpp sax mën naa def xaaj ba ba noppi sax am na ay transporteurs yuy wax ni mën nañu jël seen i camions àll nguur gi gratuitement duñ ci fay dara waaye déet Macky Sall ak Mansour Faye li leen gënal mooy gën a maaseel bambak homme d'affaires yu ci mel ni Diop si mi nga xam ni député la ba noppi jege nguur gi tey jii député bi di Ousmane Sonko bu doon yàlla def na ni transporteur la xam ngeen ni du gañe marché bi waaye Diop si moom daa bëri ay malaanu kiir laay malaanu député malaanuk diine malaanuk politique ak malaanuk am xaalis député yii di Ousmane Sonko ak Mamadou Lamine Diallo yaay nañ Sénégal gépp tey ndax wax nañ dëgg keroog bañ ne dañuy maandu ci la assemblée nationale doon jox njiitu réew mi di li ñu doon wote loi d'habilitation bi nga xam ni mooy tax président la République di jël ay dogal jaaree ko ci li ñuy woowee ordonnance ngir dogal yi muy jël mën a gaaw ordonnance googu nag moo nuy waaje yóbbu Sowetaas ñun ñëpp.